asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi eh Papa Alaaji Mbay waaw Casamance sanc Madine Mbay waaw eh, Daaru Salaam waaw Saalum Saalum waaw kay mille pour cent waaw déet waaye yow fii yëgguma ci Saalum Saalum nga rek kontaan ko giɗɗa tourné ha go guddi tourné ha go guddi fof moho o guddi wayi man mangi ni man man man mangi dekke dakar fii wayi man bomo wote man bo nekke dakar luma wax bi fi nga nekk man bo nekk dakar lu ci suma yoon suma yoon dama lijjantu ko ne dakar de capital laa la wax de waxuma la kawla de bi laa la capital sénégal wëgal këpp dëkk dëkk yëpp dakar laa ci gën a bañ sax boog pour mu leer ah de ma la déggee yow sanc Madine Mbaye moo la gën a dakar waaye yow ah, ah, gannaaw tool yi sax moo ma gën a dakar gannaaw tool yi. waaw moo ma gënal Dakar Dakar fan Dakar lu mu lan mooy Dakar. mooy capital mooy capitalu Sénégal bi di. tey laa ko doog a xam. ah. tey laa ko doog a de. ah kon ne papa laa ñu bi neex na bu fekkee neex na ba ngay faalu leen Dakar. déedéet waaye ma ne fii moo dàq Dakar nga ne faalu leen Dakar man moo dàq Dakar de. waaw ma ne kon ne seen dund bi neex na. ah ñu ngi sant de. ah waaw loolu de lañ bëgg wax dëgg yàlla yàlla de baax na waaye de. ah bu fekkee daf ngeen bay tëkkale seen bopp ak ñun tëkkale wuñ de faale ne fii moo dàq Dakar laa la wax loolu kay xamatoo du tëkkale man kay gannaaw yaa tëkkale man kay tëkkale wu ma dendale ma. waaw d'accord na. na ngeen def fii sant yàlla gërëm ko bu baax a baax a baax. géej a déggante waaye jàmm ak salaam rek. ah waaw jàmm la de ah man maa ngi man démb réew mi la ñu ngi lay laajte. waaw démb réew mi ah waaw xam nga fan yii nga fañ nekk ci bi. ah waa Papa Ragne bi est-ce baax na nga xat a xat si tool yi ba kenn mënatul laa dégg. ah loolu yéen lañ doon ñaan mooy sant li ma yaakaar. kan man alaaji mbay mi xam nga yow moom xam naa ne ñaanu la ko waaye man mii de loolu laa la ñaan ah, ah, eh, déet xat xat la xat liggéey la wala xat ak lan la ah waaw xat ak liggéey la kay ah ni kay lu koy mën a xatal loo liggéey ni loolu ah. liggéey moom bu ñu jaamoo yàlla pare nañ dem liggéey yi loolu la ñu digal waaye coono bi kay laaj suuraale coono bu bëri boo fa xaw fa xaw déggoo li ma la wax moom euh, euh, euh, alxuraan fa ne bu ñu jaamoo yàlla pare nañ dem liggéey yi du loolu lañ wax waa ma ne coono bi laa coono bi. waaw mu dee e kuy liggéey doo xam coono moom laa la wax mais coono ci la ñu bind. na d'accord d'accord naa kuy liggéey nga xam coono nangu naa nangu naa maa ngi doog a dégg. waaw kay ma ne. Ah. Euh, yéen a ngi si jàmm ba. ah waaw man de maa ngi sant yàlla maa ngi si jàmm de. man de sama bopp laa xam maa ngi si jàmm man de. waa léegi ñi nga xam ne ñoom dañoo amoon nji mu ndaw ba tey seen gerte gi tooy xaajoon ndox moom luy sa xalaat. ah loola ñuy xanaa ñoom nga koy laaj man loolu xaama ko. waa de te yàlla dogal na am na ñoo xam ne njimu ndaw lañ yoroon gerte gi seen gerte gi ñorogu des na mu tooy ba tay loo xalaat na seen gerte gi moo ko war a mën a ñoral xalaatuma leen ñoom la concerné man xaw ma njimu ndaw man Keba Diagne man moom kon lu ma xamul manuma caay wax foog maay laaj ci li ma xam ba baabali nee na wax ca loo xam waaw waaw waaw waaw loolu de am waa déedéet yow foog ma déggu de faane déet déggoo ma de man dégg naa la yaa ma bëgg a dugal ma ne waaw foog maay laaj lu ma xam man li ma la wax leer na yaa ma bëgg a dugal ci lu ma xamul Keba Diagne ka ma njimoo ndaw man xaama njimoo ndaw man damaa xamul moom luy ca nekk ca xelam ma wala lu mu xalaat faa ko xam waaw waaw waaw nangu waaye déer foog boo ma dégloo rek ma waxal la de ma ne ah, waaw ci waxal ban bu fekkee beneen wax ngay wax waaye déer dama naa dégg ngeen naan bu nit jiyee ji ndaw de ndox baax na sax ndox ba ah ngeen naan yaw loo wax yow ah yow fa nga ne ngeen naan yow loo wax màkk na ko wax dée dama dégg comme tey faane yow yaa ne faran jigi ngeen nan tey suy waxtaan du neex de nu maa dégloo du nii de boo maye ah. ma wax ma laaj la de faane ci nga ah. xam fa jiwoon jëmu ndaw la yore gerteem gaa nga tooy ba tey waaye ñoragut lan nga jàpp ne moo war a ñoral gi li ma la wax waaw wala fa nga bëgg place li ñor papa laaj mbay nit nu ko tegee place yàlla ma man man simple ku tuuti ku xeebu. waaw waaw dégg nga su ma jiyee waa déglu rek. waaw waaw man su ma jiyee su ma tool. waaw. pare naa ci xamatuma ci benn pexe wala benn xalaat boo mooy dem. bayi bi waaw ku ji sa tool bëgg nga ndox. dégg nga waaye fu may ñoree nu may saxee. moom xaw ma ci dara maa ngi wàcc na képp yam naan ma fa ngeen ne. waaye déedéet déedéet dama am na benn ma boo xam da ngay toog nit ki toog si dàtt ji na mën na sama ñëw ndaw mi ndox baax na si tay ndox ndox baax na si léegi doo koy dégg a ah daa dinaa ko lay waaye ne xaw ma ci benn xalaat nag. ah kon léegi ñu amu seen ji ndaw eh, ñu toll seen gerte ñu ragut xamoo lu mu bëgg daal. waaw waaw yéen nag waaw waaw yéen nag bi wax ne baykat nga te xam ga xel te ci àll bi nga dëkk yow loo ci xalaat yow yow kay seetal lañ ci xalaat loolu la man xalaatuma ci dara. ma ne taw laa ci xalaat gannaaw mi gerte gi taw ndox. ah waaw waaw waaw ma ne waaw ma ne. waaw. du yàlla moom ndoxam mi. waaw waaw loolu kay xam na ko moom. ñaanal ah, ah, wax ko kon wax ko yàlla bu dee loolu nga yéene ñaan ko yàlla ñaanal yàlla rek. waaw kay yàlla fañ koy ñaan. xam nga ma ne. waaw xam nga yàlla ak defaram ak yàqam deful ko ci làmmañu noonu karen ak làmmañu waxkat. déedéet eh, déedéet déedéet papa lañ bu waxee deful ko ci làmmañu eh, seytaane. déedéet papa lañ yàlla moom la mooy def ci coobaram la koy def waaye deful ko ci dara xam nga. ma ne waaw waaye bul waxee noonu bul waxee noonu. Ah, xam nga boo ne ah kay déedéet papa lañ bay wax jàng bëgg bul waxee noonu. Eh, man damay laajte rek bul waxee noonu bul waxee noonu Papa Alaaji Mbay yow sama xarit nga boo waxee noonu léegi xam nga boo ne yàlla li baax ak defal ko si làmmañu noonu ay yàqkat day mel ni sama maay laajte kon wax ji day mel ni man dama see gis sama bopp te xam naa ne ah, ah, ah, waaw boo ci gisee boo ci gisee boo ci gisee sa bopp kay nekk ja boo ci newoon doo ci gis sa bopp ah Papa Alaaji Mbay nu nga déggee tey xaw naa kii de déet xaw de man xaw de man daal moom damaa fur weer rek asalaamaaleykum wa rahmatullah